maa ngi lay nuyu mais maa ngi lay ziar grand Zalba les grands de Minas Zer les grands de champion bi. waaw mais bàyyiwuma dara contact guddi contact bëccëg su ma gisulee dara dem bëri ji mbapat ndax loolu yaa ma koy xelal tey bu ma ësee fii sport ak des sport ndax bu ñu eggee fii ginnaaw yàlla yow la ndax yow sa liggéey sa xool da siy ànda bi nga si am moo tax maanaam ñaari ñaari ñaari entreprise yi ngay doxal yëpp day dem waaw maanaam tey nuyu sa mbokk yi. waa di nuyu sama mbokk Sinuwaay yi ne leen amigo namasto ne grande Ousmane Ousmane autor oh, Ousmane eh, zalba Ousmane ne zalba Ousmane eh, ne les nambu wala Ousmane eh, ah, Ousmane anato namaton namado Ousmane itoni yimi tor Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane ara national Ousmane ah, Ousmane na ko to ne kolong Ousmane Ousmane me na ta enang tel nalang tolang nalang chonan namado Ousmane ana ah, o tana Ousmane ta naata naɓe noon aɓaɗo simani kan sa diggante ak Songotin ñëpp moom la ñu waxtaanu pare naa pare naa yow rek laay déglu looy wax Songotin mu dégg la bés Songotin wax ko ci seen làkk chinois boobu Songotinoo ma tonge no neka doomi chinois bés na nono tos mene asto nama tos no itas no de attention nena Sonkotino me Sonkotino matas no nakalen chomate nena astoda parce que na bopa ana store naka barange attention benati senkoto sonko soma abomba tan kuwo chama rana choma anda akwa disno arani kona abon choma sonko tino me waye no sonko din be suma jele dama nek be suma jele eh. ban ba sinwa bi jox ma mu ba ma dal bu ko bi est-ce que sinwa yi jour boobu faral non mais sinwa yi samay xarit lan ñoom dañoo jël seen lépp bàyyi ak man c'est damay ak sport international ndax dama leen a bëgg a andi si sëb nga xam ne mooy làmb ba ñoom tax na seen ambassadeur sax dan maa fal lu leer laa lay wax man ak ñoom bokkuñu sax dama bëgg sax événement bi grand salle ba nga préparé ma si bu baax a baax a baax. kickboxing pare nga. non kickboxing pare naa yow xoolal forme bi ma yor jekku si kickbox. sa digganteeg bu Siteu sa digganteeg Sonkotin sa digganteeg Amadia boo ci bu la ci gënal. non Sonkotino Sonkotino semaine une préparation men une combat semaine jëloo une combat Sonkotino mais. Jello combat in game, but stories, man. In Dovitin Wild, man. So continue, man. And also, so continue band embarrassment. In preparation, bin, pour King Box stories, man. Now, John, Grand Zalba, doxal sama diggante ak Sonkatine. dama koy dama koy rase. dama koy rase comme ni ni sin waay di def si dama koy talaate. dama koy dóor ba mu lemu si njaaxi. moog jënu sebalu ñoo yem. mbali dañ ko def ay tias dama koy door ba mu sebalo foofu bu sebalo bu duggé foofu du mën a billahi ma ngi préparer nak sama combat yi fi amul benn mbeur bu ma fi bayyi bepp mbeur buy tak rek don tout des lutteurs ma ngi préparer sa kaw bàyyi ma fi men mbeur mbeur mi talu fi nan deux combats la am trois combats la am na nga ñew ñu bëre fi boy du ay champion da ngay bëre bëre bëre ba wara bëre ak say mag mais boy légui da ngay bëre ku gis deux combats trois combats na champion la loolu du champion da ngay ramper say morom Oke okay, grand Zalba sa liggéey rafet na si sport Zalba